non mais parce que yow wax nga lépp na nga mettre baaw. non non damay expliqué laisse terminer. mooy naa mais encore une fois. après damay xam lu ma lay lu ne faisons pas de déballage parce que quand même. cette cette ngeen waxtaan mais déballage bu mu am aussi. damay wax c'est pas c'est pas damay wax li am rek li am rek laay wax. parce que j'ai de la famille quand même. Mhm. et qui se sent concerné par cette affaire là. et je vous dois de laver mon parce que quand m'a fait la posture qui a fait une correspondance depuis la Belgique adressée au président du tribunal mm -hmm. dans laquelle correspondance il dit bien que ni bienvenu je n'ai jamais mandaté maître Babou pour faire une plainte contre Serigne Mor Ndao et que toute plainte initiée par maître Babou contre Serigne Mor Ndao euh, je, demande à ce que cette procédure soit déclarée nulle et irrecevable mm -hmm. mais c'est cette seule correspondance que ñun moom la ñu devant le et l'a condamné lui-même au dépens. J'aurais même pu lui faire une procédure pour, pour procédure. J'aurais même pu lui faire une procédure. Parce que même, si on une procédure, on aurait pu s'arranger. Parce que nous, tay, si on a la technique, maître Babou, moi, nous parce que lu tax moo ñu ko teg su fekkoon met su fekkoon ni non il y a un truc met il y a un truc il y a un truc qui est important met mhm. parce que day wax ne moom mooy l' avocat de la famille Ndaw parce que sunu cousin la je pense que su fekkoon ni mooy avocat de la famille Ndaw du sax seetaan man su ma ko toppee ci raisonnement am mais ñëw jaay suñu kër mu may jox xaalis ma koy def naka sollu noonu alors qu'un juge est là un séquestré est l'a empêché de remettre prendre cet argent là su fekkee ne na xaalis suñu jaay la jënd reverse ko séquestre bi pour que le juge euh, a laaj est-ce que maître Bab mën na nekk avocat de la famille euh, loolu c'est une question complexe. Mm-hmm. mais euh, ça pas dire insoluble. Mm-hmm. bu fekkee ne dossier bi ñuy wax maître Babou lañ ko confier pour mu mhm. dox lépp jëm ci succession bi ñii la nekk seen avocat à titre principal mhm. voire exclusif yéen ko nommé mu nekk seen avocat yéen a ko jël. jamais ko jël mu nekk seen avocat attendez attendez attendez non il faut pas qu'on se contredise. Mhm. maître Babou pas venu chez vous. pour vous dire le dossier de la succession donnez-moi ça. man justement la bëgg a expliquer. voilà yow yaa indi dossier bi dans le cabinet. où vous travaillez. l'a bon il l'a accepté. il a fait des actes. Mm -hmm. le juge a été saisi. Mm on a désigné un mhm. voilà. ce que ensemble vous auriez dû refuser. Mhm. c'est ce qui s'est passé après. Mhm. vous vous auriez dit à Babou. maître dans cette affaire là on n'a qu'à continuer comme on a commencé. le juge est déjà saisi. un secrétaire est déjà désigné, qui c'est un comptable, client, on le présente au secrétaire. Le papier la je ne le signe pas pour des raisons multiples, en particulier vis-à-vis de ma famille. ça se serait arrêté là-bas. waaw euh, maître baal moom rek nga may ma ndax am na koo xam ne yàgg na si ligne bi depuis sànq mi ngi woote euh, salaamaaleykum. allo allo. waaw ah, allo. oui sëñ bi noo tudd ak foy wootee. waaleykum salaam waaw yaa ngi woote Mauritanie ana waa ana waa Mauritanie sëñ bi. waa Mauritanie ngi mbaa ñu ngi ci jàmm euh, baal ñu rek nga ñëw ci sujet bi nga xam ne moom lañuy ñuy traité tey nan nga ko jàngatee ban solution nga ci apporté. loolu dama am loolu lu ma lu ma bëggoon na laajte foofu ci Sénégal parce que ñun fii mhm. bi mooy si la parce que damaa ñëw xool seen dafa am ay carte ay carte séjour yi wax na fi liggéey dañ koy ci dund laaj ndax waa Sénégal foofu ñoom nekk foofu ñu ngi leen ma rek dama doon am ba ma xam naa dinañ la tontu après sëñ bi incha allah dinañ la tontu boo woote waatee ci suuf à la régie euh, woote ci numéro 2S 33 822 14 90 33. 822 14 90 maître nga baal ma rek yeggale un peu fi ñu doon waxtaanee. Euh, non ce que je disais tout à l'heure mooy affaire bi. Mhm. si véritablement tout le monde de disons calme serein. Mhm. ba ñu gisee client. Mhm. bu bëgg a jënd ba d'accord ak moom prix dañu waroon bind tribunal bind séquestre bi. ñu finaliser dossier bi affaire bi jëm foofu moom ci boppam. xaw ma lu tax mu. bañ a def loolu mais contribution bu ko defoon dans ce sens là problème du am boo doon mettre baabu je ne signe pas ce document là on va voir le séquestre mm-hmm. pour que affaire bi jaar fi mu war a jaar mm-hmm. mais je, suis persuadé que vous en aurez fini avec ce dossier maintenant ces erreurs là il faut mm-hmm. reconnaître que vous les avez faites alors si vous le reconnaissez vous avez une part causale dans ce que vous appelez aujourd'hui le sinistre. Votre famille attend cet argent-là, n'arrive pas à l'avoir. L'autre attend sa, sa maison, il n'arrive pas à l'avoir. Et puis vous êtes là, yow ak Babou, des oncles, des neveux, des clos. Ça aussi, c'est c'est du temps perdu. a tendu la Non, j'ai dit, vous êtes tous les deux, si tant est est concerné, comme vous le dites, vous êtes mm-hmm. tous les deux concernés. Mm-hmm. Vous êtes des parents. Mm-hmm. j'ai écrit quelque part aujourd'hui que la parenté c'est un trésor pour les musulmans parce que lii euh, li yàlla jagle jullit yëpp presque cinquante pour cent muy joge ci famille ni ngeen di yore famille mais l'inverse aussi est vrai c'est ça il y a des qu'on ne fait pas dans une famille parce que daf ko yàq donc à mon avis si cette émission la a un objectif ce n'est pas pour diviser cette famille là au contraire c'est pour vous réunir donc trouver le moyen d'aller revoir le juge. Mhm. Dites-lui que nous avons bel et bien vendu à ce monsieur-là, même si ça, ça s'est passé dans des conditions difficiles, qu'on lui permette de prendre sa maison. Une fois ce problème réglé, vos rapports avec Maître Babou, si c'est lui qui a pris l'argent, mm -hmm. vous le réglerez de la manière la plus raisonnable aussi. mais, mais, euh, mais, la radio, la télévision ne peut mhm. pas vous imposer mhm. une solution. C'est à vous de la trouver. Et je vous dis une chose, recherche des valeurs à travers cette émission. comment faire pour éviter des erreurs comme ça. moi je crois que c'est ça. loolu mooy objectif euh, en tout cas man ma ñëw. c'est dans cet objectif là. Mhm. parce que j'aurais pu dire comme mhm. maître Babou. Mhm. le bâtonnier ne m'a pas autorisé. mais j'ai dit si je viens ici sama yéene mooy faire en sorte que on sache que ce genre de problème là sont faits pour être réglés. mais de la manière la plus efficace baal ma tuuti maître am na ku nekk ci ligne te mi ngi insister allo. allo oui salaamaaleykum. waaw na ngeen def. sant yàlla sëñ bi noo tudd ak fooy wootee mu gaaw tuuti rek nga baal ñu. bon mun naa garder sama tour s'il vous plaît. y a pas monsieur. voilà li ma doon wax mooy. Mhm. émission bi am na solo loolu waaye dafa am lu ci des. Mhm. lu ci des mooy maanaam avocat bi nga ki nga xam ne xaw ma avocat la xaw ma bi nga baal ma sëñ bi nga baal ma est-ce que mën nga wàññi sa rajo sa télé euh, autant pour moi parce que booy a ci ci antenne bi. si suñu def may dal man déglu. allô malheureusement dem na. bon il voulait s'adresser à l'avocat malheureusement. ah, ah mais nag maître malheureusement waxtaan bi neex na c'est intéressant mais à la régie on me temps bi nga xam ni cëral lañu cëral lañu ma ko dafa jeex. merci. waaw mais ki nga xam ne nekk na Belgique tam ñu ngi may def euh, signe à la régie mi ngi woote depuis sànq mais malheureusement ligne bi neexul donc y' a pas xam naa à ah, dans 15 jours moom dina ñëwaat fii. woote waat andiwaat ay euh, solution juddu parce que comme ni nga ko waxee sànq maître ñu bëgg rek ici à 2S émission à vous de juger concept bu mooy fexe jubóole solution am ci problème bu mu mënti nekk. parce que problème bu problème junni dinañ ko jànkoonteel mais c'est nous dans nous li ñu bëgg rek comme ni nga ko waxee sànq suñu objectif principal mooy. fexe ba daal di juboole dajale ñi nga xam ne ñoo di famille bi maître sa dernier mot balaa ñuy euh, joxe rendez-vous à man sama dernier mot je vous remercie daan naa ñëw digestive bi mhm. je crois que c'est un retour très agréable le sujet beaucoup. est très important mhm. et j'espère que en tout cas tout le monde en bénéficiera mhm. euh, maintenant et plus tard merci beaucoup maître en tout cas merci beaucoup jërëjëf ci ñëw bi nga ñëw euh, éclairer li nga xam ni moo di euh, problème bi nga xam ni am na solution si nga xam ni wax nga ko xalaat nga ni daal war na ci mën a juddu sëriñ Mor Ndaw mhm. sa wax bu mujj mooy lan waaw sama wax ju mujj mooy bienvenue mhm. ñun bu ñu sañoon tey mu jot këram mhm. parce que yéen famille bi bienvenue bu sonnee ñun tam sonn nañu quoi parce que du ma wax sax man parce que man fa ma nekk maa ngi koy fay mais suma frère yi ak sama sœur yi nekk ca kër ga chaque mois dañu war a fay parce que juge bee ko ordonné par ordonnance. man ñoom laa gën a yërëm. donc moom def naa li muy woote ne sunu parent la sunu mbokk la. moom moo ko war a njëkk a posé acte yooyu. sunu huit millions yu mu bëgg jël sunu xaalis moom la ñu mënul nangu tey maître te duñ ko nangu ëllëg. ça c'est impensable sur vingt huit millions quinze personnes prennent vingt deux millions moom muy jël d'autorité huit millions sur la seule base que ni rapport d'expertise bi vingt deux millions ndax lépp lu surplus maa koy jaay ma man maa koy jël. je loolu duñ ko nangu tey mhm. duñ ko mës nangu ñun même si jaral nañu dem ba fii ak l'an duñ ko nangu ça mhm. jamais moo tax en tout cas moi je vous mhm. gracieusement et je daal bu ñëwee di ngeen ko taxaw lii daal lañ bëggoon je pense que est-ce aussi ah moom mi nga xam ne nekk fi tey bu ñëwoon ñaan la ndimbal li nga ko jàppale ba mu jot kër gi nga xam ne pourquoi pas on va voir à quatre et puis essayer de trouver la solution au besoin aller voir le bâtonnier. ndax mën nga jox rendez-vous ñi nga xam ne ñooñu seetaan à dans 15 jours dans à vous de juger. il n'y a pas de problème. merci monsieur merci pour nous avoir suivis à dans quinze jours et ce sera à vous juger.